Modou Lo moom mooy meeru Pikine Eumeu Sène moom mooy meeru Guédiawaye waay waa kër duuba lees fépp fu nu seen ki nga xamante moo di Eumeu Sène laa la wax quoi triple lees lees koy woowe yëgle kaay gi naan man ndaama kay fu ko gaañi seen ni ko eewaay eh, sëñ bi noo def moom Eumeu Sène ndox du bàyyi yoonam tay si nga dof du wér yëgle kaay gi naan man wéragul ci waa kër duuba lees gi de la def lak de guerre 2 gi naan man def ko ñaari yoon Balla Gaye 2 ma ne def na ko Sa Thiès doomi duuba lees triple lees ji na ko ni ko may quoi triple ma Eumeu Sène kay fi toll nga xamante ni moo di biir Géejawaay mooy maire ba Ahmed Aïdara yëglekaay gi naan man caabi kay fi toll ni tembe mook Ahmed Sène a koy séddoo Géejawaay yëglekaay gi naan man Ahmed lu ko neex daagoo Ahmed lu ko neex doxee Ahmed fu ko neex jaar Ahmed fu ko neex tijji ah xanaa lii de mooy maa leen man nag yëglekaay gi naan man daan mag ñaari yoon rakk ñëw mu ni ko duma sa morom fa ma jaaroon nag sa mag laay jaar ak yëgul njool adépêche yëglekaay naan man moo ne akay mag expérience am dëgg la daal jël rek exercer ko ci kaw jeune bi yëglekaay gi naan man woon ko ni ko duma sa morom maa la mag xañ na ko verdict ni ci yëglekaay moo ma ko xamal ni ma xañ na ko la nga xam ne moo di réew as bu mu bëgg na defal mag ja moom Sa Thiès yéen eh ko xam ni foowul foolu de yëglekaay gi naan man làmb ji jox na ko àqam ak yelleefam lépp lu ci war la def ubbi yëglekaay gi ma nga naan ba mu doo rek nëgë nii ful ak fayda ak jom ak entraînement dëgg lay indi combat bu man di am moom Eumeu Sène jox na ko xam nga noo koy woowe buuru kër duubal lees won na Sa Thiès ni man duma sa morom ni Balla Gaye 2 tey ñëw kon ne ci làmb ji yëglekaay gi naan man Balla Gaye 2 tafaatin ci jëmi boppam laa la wax ñoom ñaar daje nañu yuuxoo nañu wax nañu ay waay tafaatin gëm forme ba nga xamante ni moom la indi mu ni Balla Gaye 2 dinaa la duma dinaa la daan Balla naa ko ndox du bàyyi yoonam dinaan ko déggoo anglais waxal olof demal jàngi ko ew waaye no samba yoo maay niga yes pro crazy man ay yees ak yees yees moom bari na fa yëglekaay gi naan man moom kay mi ngook làmb jaa ngi noonu dox wax wax ci réew mi askan sunu gaal li xew yëgle kaay gi naan man seetal ma lii ay ñun fu nu jëm ci mim réew semaine bu jot ñu ne ay bakkan rot na lii ci accident mbaa dal bu daanu ci accident yu takkarnaas yi xamaat ci njeextale ay bés bii ba xam ñu ca faatu buñ moytuwul nag dana xam ñeneen ñu faatu ci ab accident boo xam ne nar naa xam ëllëg te ca pont Émile Badiane bee la nar a xamee le mandat yéen kaay na la ñu daloon ca batalo Joola suñ moytu danañu dal de pont ba fa màgget l'observateur moom fa ñoo xamal jëf ju ne fukkaat ak ñaar fukkaat ak juróom lañ am fa jigéen boo xam ne fukkaat ak benn la xam ñoom ñëpp neen ki jàpp Sa def ko ni xale du kenn ku may Eumeu Sène neexut ba neexut waaye Eumeu ndaanaan la é démb daal Eumeu fa jàpp Sa Thiès kurpeñ yu takkarnaase fañ doon soxante ay kurpeñ dóorante yu métti combat bu neex waaye bi ko Eumeu Sène jàppee ba takku ko ba mu dëgër fa koo tegal sées bittéer bi la ko def daana ko ba jaaxaan ba tax suñu làmb yéen kaay ne neexut ba neex waaye Eumeu Sène buur la ca kër duubalees ah fa jàpp Balla Gaye 2 magu Sa Thiès mbuqi ko ñaari yoon Sa ñëw na fay fayul mag ja Eumeu Sène ma sa morom fa koo mbuqi ba muy bëgg a dee bu leer nañ ba tey yéen kaay bi ne Balla Gaye ak tafaatin fañ faa xamal jàkkaarloo bu saf sàpp nappante nañu mu mel ni seen combat ba dana neex waaye li neex démb nag seen kàddu ya moo ñoom ñaar fañ doon jéem a làkk ay anglais yoo xam ne la yàlla xam doy na de anglais doy waar waaye leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi Vox Populi yéegile kaay naan man du weekend dramatique dëgg ngay wër kaay ma wax la diggante Saint-Louis Sédhiou ak Daaru Xuddoos ay waaye la fa xew a yéeme doy waar ñaar ñoo xamante ne ay xale yu jigéen yu ndaw lan di ay mag ak rakk yéegile naan man ñoo faatu ci aw dal boo xamante moo daanu miir bu yàgg la dal bu yàgg la ca ndar ay waaye wattu leen ndar yu yàgg yi daa wóorut day man nim ndox bis bu ko feesee dell ni na ci dal yooyu nanuy daanoo ah mag attanu ko waxatuma la a la xewee yëgle kaay gi naan man ba tey ci week aw sept place laa la wax moo jekki-jekki rek saaraan dal ci aw camion mbëkk ko xamax laa wax camion ba nag daa paanoon ca sitaaba da ngay lii rek camion bu paan loo ciy daw nal na lekk ndamax ndamaxi ba ni xës ci kawam yëgle gi naan man ñett ca ñoom fi mu toll nii tembe ña ca kaa doy waar garaaw loolu laa la wax sept place bu defee sept personnes juróom ñaar yëpp blessé ñett ña metti drapé yëglekaay gi naan man dalandoo ci ay élèves trente blessé lan ca am yëglekaay gi naan man wata ba daa daw nit na max ca la nga xam ni moo di école ba Medina Fall laa wax président Diomaye ca quinzième OCI ba wax na fa ne naqarlu na Sénégal mittitlu na fitna wii Israël di teg Palestine waaw ñu xool nuñ koy dakkalee looloo gën Ousmane Sonko Elimani jëwriñ yi ci Sénégal nee nañ dinañ tàmbali boo xam ne dañ ko def ci diggante Mali euh, Guinée Guinée euh, Burkina Faso yooyu tund Afrique daal ngir xool ñun nu ñu mën a defaree suñu bopp yëgle na it ne Mélenchon dina dikk Sénégal bu yàggul dara Afrique daal la tànn ngir Afrique développé boppam waaw. Euh, nda xam ngeen mbuurkat fi ñu doon séddoo suuf si am na ay turi autorités yu ci jot a génn waaw Pape Diop Cheikh Oumar Anne Youssou Ndour Antoine Diome Amin ñii bi daawuda ak Arouna Dia allahu akbar Idrissa Seck moom treize hectares la ca amoon te Thiès yëpp trois hectares la ñu amoon ñoom ëpp nay def président Macky Sall moom boo newaan xat ga lay na rek mu tibb suuf su doy jox la moom président Macky Sall sax dajale na ay bokkam ngir ñu taxawalaat Benno Bokk Yaakaar continuer waat liggéey bi gannaaw daaka ba Kaffrine am na yenn ndigal yu mu fa joxe ba jot a wax ak mbooloo mi am na ci ñu xam politique ñu ne est-ce que du dafay jéem a écarter Amadou Ba waaye loolu waxi ay analyse la rek mën naa bañ a am mën naa amit waaw euh, suuf sa coow la maître Doudou Ndoye avocat nee na lii président Diomaye def ci euh, littoral bi dakkal liggéey yi tegu ko ci yoon waaye maître Abdoulaye Wade moom nee na rafetlu na jëfi Diomaye jii mu def question. Eh, waa rapport ya fan lañ toll libération yi nekkaa ne subvention yi nga xam ne day waaw agence de la couverture maladie universelle semi bi yi nga xam ne nag maanaam doon nañ ko versé waa département yi mutuelle yi ah diggante 2017 ak 2019 googee waaw dama ne leen lëndëm am na ca dee mardi taali lu tolloog juróomi milliards ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent day ci ay millions ah ñoo ni may kenn teg ko loxo dama ne kenn gisu ko yaa jum wala moo rëy ba tax na nag ñu war a kon audité audit boo xam ni ci wàllum xaalis waaw dañu koy xóotal de ba xam nag maanaam xaalis bi ñan ñoo ko jot ak ana lañ ko versé te agence boobee mais dañ koo suul sax par décret ci jamonoy transition bi te Macky Sall ci boppam kon moom moo def lu ni mel yéeni kaay Cheikh Mbacké gise gi ne seetlu gi daal lenn la ay subvention yoo xam ni kon ñu koy jox nag mutuelle yi lée waaw leerul dee de ne union départementale région wu Louga téeméer ñoom yoo yee dañu may introuvable kenn gisu ko ña nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo doon vérifié daal dinañuy naqarlu détournement wu subvention yoo yee ña ko taxoon a jug de ñu ko de te nag ay tappaleeg ay surfacturation yu bareeg ay fraude gis dañ ko ca xoolal ma projet d'appui à la professionnalisation des mutuelles de santé communautaire waaw dama ne la ay millions ngi millions yoo xam ne day sànni nañ ko ca palanteer ba de xaalis ba dañu may te waa Cour des comptes day nee yi lañ ko jox ñii mbëri ñii leader d'opinion yi eh, samba eh, audit le professeur Sidi Alpha a également évoqué la controversée question de l'hyperprésidentialisme euh, par la réduction des pouvoirs du président de la République et le renforcement de ceux du Premier ministre. Loin de s'en tenir là, l'enseignant agrégé en droit public a également fait état de la nécessité d'échanger sur la rupture dans l'organisation des élections par la création d'une CENI, une commission électorale nationale indépendante qui sera donc déconnectée de l'Intérieur avec une composition plurielle mais aussi ouverte à d'autres profils que les techniciens du droit. dinañ fa dem de xoolal ma li ñaari adolescent ñaar ñoo xamante ni ñoom ñaar majeur gunu kii 12 ans la am kii 15 ans. ñoo sëgg ci aw mineur boo xamante ni fukki at ak benn dong la am di aw mineur ni ñoom yëgle kaay gi naan man de dañ koy violé di ko paasante ay waay lu nu mel yéeme na metti na te doy waar wata bi ngeen gisoon muy kaar ba doon def la ko neex ak emprunté ba yëgle gi naan man ñoom ñaar ñëpp muy chauffeur ba di emprunté kaar ba ñëpp jàppes nañu leen vidéo bi nga xamante ni daanaka réew mi ñépp ko am ngooy nañ leen indiscipline amul njëriñ lépp faytoo réew mi askan sunu gaal kay kuy def na nga def loo xam boo tëddee nelaw Madiambal Diagne en tout cas journaliste chevronné de son état au chapitre du débat autour et eh bien autour du foncier de l'heure a d'après le journal du groupe des médias déclaré billahi wallahi tallahi l'état et eh bien l'état ne peut pas alors là pas du tout du tout du se permettre dédoy Madiambal waaw waaw alors pourquoi eh avec le risque d'arrêter et eh bien d'arrêter des chantiers qui sont réguliers. Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Bondé Bourine signé et eh bien signé ou journaliste teigneux. Madjambal eh Madjambal Diagne dans toute la vérité. Émission reprise et eh bien reprise par Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de d'autres propos. Et eh bien d'autres propos Kouroubaïfal Madjambal Diagne. À savoir, il faut que tout se fasse et selon la légalité absolue. Absolument livre Tribune Quotidien, le journal de noter que le journaliste et administrateur du groupe Avenir Communication recommande, eh bien, recommande aux autorités de faire preuve de méthode et de stratégie dans leur volonté d'enrayer la spoliation foncière. Aussi, il remet, Madiambal Diagne remet en cause l'arrêt soudain de chantier en cours d'exécution. Explique en tout cas Tribune Quotidien dans ses colonnes. Nouvelle-Ville Thiès moo gën a yées dëgg laa lay wax ni di xew ci Mbour kat ay waay waaye lii tamit ba jàmm la bés bi le jour ay borom barke ay kilifa yu mag a mag ci réew mi ak i borom tur yoo xam ne que ñoo tongtonge suufu réew mi daal di wax nii ba ci suufu mbuurkat bi waaye daal di xew nouvelle ville Thiès daal doy na waar maa la ko wax de ndax séddale bukki dëgg moo fa am bukki bii ñuut bi sàmba lii bés bi le jour ne Idrissa borom parti réew mi treize hectares yi lii nag moo la futu njiitu réew mi Diomaye Faye te ay kilifa ak i borom barke dëgg laa lay ni ñoo séddoo ci la bokk Cheikh Omar Anne ci la bokk Arona Dia ci la bokk Daouda Dia ci la bokk Kalidou Wage ci la bokk Amin Ndiaye ñibbi ci la bokk Antoine Diome ci la bokk ak yeneen kilifa yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo séddoo suufu Cees ki benn dëkk ñaari gaar ay waay li tamit dëgg la bés bi la journée ay délégué de quartier ay communicateur traditionnel ay taskatu xabaar société civile ba ci kilifa diine yi nekk ci Cees kaay ñoom ñëpp la ñu séddale suufu Cees gi yëgle kaay bi ne waaye daal kenn du Macky Sall déedéet moo doon séddale parcelles hectares yi comme ni ñuy tongtongee tam xarit doy na waar Libération ne lu ci yoo xam ne ci ay prestation de santé la jëm diggante 2017 jàpp 2019 yéegle kaay bi ne ci fekkul ba ñuul yax ba fa nekkoon ne menteng la wax ak yu subvention yoo xam ne dara leeru ci ay cas de ak yu surfacturation yoo xamante ne daal jooy na waar te ginnaaw jalgati yi lépp amul benn daan boo xam ne teg nañ ko ci kenn koo xam ne daal jàpp na lu ne sa loxo daal takk na ci ñu ne déet ne waaye ay koppar yoo xam ne ñu nga jël di ko séddale ay waykat ay mbër ba ci ay influenceurs yoo xam ne tegul fenn la lay wax tur naan gi paju mi ba ci nëkk ndëkk waaye daal lii daal moo doon coono goo xam ne ci kaw askanu Sénégal ba tey daal amul saafara déedéet yéegle kaay groupe des médias bi lii lépp daal ma ngay xaar waxtu yi te ba tey daal France daal di xëdd ndax solution di saafara daal amagu ci ndax ndekki añ reer ba tey daal li su dëgg réew mi ak i bërëm kër yoo xam ne ak i góorgóorlu daw nañu booy bëgg a dee waaye France daal di xëddeen ak budget boo xam ne ëpp na juróom-ñaari junni milliards sunu kobar fii ci Sénégal ba tey ji tey la waala gën a aay ndax coono yi gëne si askanu Sénégal gilee ndax góorgóorlu yi daw nañu bëgg a dee te mënuñu am sax benn mètre jamono joo xam ne ay kilifa ki borom barke ñooy tongtongee suuf réewum Sénégal gi ay borom kër ak i baadolo yoo xam ne ñu ngay kër këri sufa ngoon guddeeg lu yaas di leen bëgg rey tabatee daa amuñu fu ñu teg seen bopp daal ngir noppalu ci jamono joo xam ne ñu ngay pasar pasare alalu réew mi yëgle kaay bi neexul ba neexul nii benn fonctionnaire moo daal di arrêté nag dakkal lépp loo xam nii procédure judiciaire la de tribune yéene kaay ñu xamal nii kaay li leen soxal kay dëgg dëgg dëgg mooy lekk naan faju ak dëkkuwaay de turbine yéen kaay bi nañ gis nga boo bëggee dëgg-dëgg lii kay laaskan wi di xaar te ñoom nag la leen soxal dëgg-dëgg moo ñu indi si ab saafara rek lekk naan ku bëgg a faju faju ku bëgg dëkk am dëkkuwaay bu baax rek waaw waaw lii mooy dëgg a gis nga kër yu bëri nag fii si réew mu Sénégal daanaka bu ñu añee duñu reer da tey bu ñu reeree duñu ndékki lii jafe-jafe la de fa naqarlu ba ca kanam yàlla ju ñaaw ja nga xam ne Israël fa koy def réewum Palestine ñañuy rey ak fitnaal ba tax fa nekkoon waa Palestine kooku nag du kenn ku may président Jomaay Fay ndaje mu mag bu OCI bañ doon amal ca Banjul ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mai bii ca la jëlee kàddu wane taxawaayam ci wetu askanu Palestine la Soleil yi ne kaay yeggee ñu ko maire laneen lu leer ba yegg ca nañ ja quatre moom ay délégué de quartier ay communicateur traditionnel ay taskatu xibaar société civile ay kilifa diine pàccoo daal ci gàttal moom président Macky Sall doonoon ab distributeur automatique bu parcelle ku xeef mu daggal la libération yéeni kaay nan kon yemunu ci daggante ay parcelle yemunu ci séddoo suufu Sénégal alalu kaskan wi séddoo nañ ko di lu ëpp juróomi milliards maanaam ci gàttal juróomi milliards yu toftal ñaari téeméer ñaar agence bu couverture maladie universelle moo ko versé ay organisation mutualiste ci faju gi nga xam ne ñenn ñi faju nañ ko diggante 2017 jàpp 2019. beneen mbir bi itam bu am démb ci samedi bi moo di foofee ci diwaanu euh, Kaolack euh, muy dëkku bu ñuy wax naan ndar gu ndaw foofee itam daal ab borom euh, Jakarta lañu daal di fël moom nag mu daal di ñàkk bakkanam waaye itam ka mu yor woon jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti métti gannaaw bu leen oto. gendarmerie daal di mbëkkee ñu daal di nag eh, kenn ñoom daal di jëlee ay gaañu gaañu lépp nag eh, mi ngi eh, maanaam amee ci kaw route nationale bi waaye tam bi bi amee sa sapeur pompier moo daal di ñëw jël néew ka nga xamante ni moom moo di borom jakarta bi waaye itam ka nga xamante ni tam moo ci amee gaañu gaañu daal di koy évacuer ñoom ñëpp nag daanaka sax foofee la ñu daal di yóbbu moo di ci hôpital régional El Hadj Ibrahima ngees bu Kaolack ñu daal addu itam ba tey rek ci li nga xamante ne rek moom moo di mbir mi am foofee ca diwaanu Touba muy rek mission de veille et de surveillance bi nga xamante ni moom mi di xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké joxe woon na ko ngir ñu daal di protéger li nga xamante ni rek moom moo di sacralité bu Touba foofee nag daanaka sax ñaari Baay Faal ñoom ñoo daal di am benn altercation diggante ñoom ak kenn koo xamante ni ab jaakatu drogue la loole sax daanaka ginnaaw bu ñu gisee loolee jaakatu drogue boobee demoon nag ba nga xamante ni dafay daal di jàppante ak ñoom ba mu jëlee ki nag ay gaañu gaañu yu méttee métti wala sax a ginnaaw loolu police daal di ci ibbi ab lànketam fexe daal ba jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñaari bayfaal yooyee daal di leen di yóbbu ci kanamu yoon waaye itam sax ñoo ngi ñi nga xamante ni itam jamono bii ka nga xamante ni moom lañu moom la bayfaal doon dóor ngir wàllum drogue. moom itam daal nañ koy teg loxo ba tey itam ñu daal di wax rek ci mbirum école yi ak abri provisoire yi nga xamante ni yenn saa yi dañ koy nemmeeku collège bu commune bu Dingiraay nag nekk nag ci département bu Médina Yoro laa nekk ci région de bu région bu Kolda foofu nag sax daanaka. ab lakk-lakk daal moom moo daal di ravager ñaari salle de classe mu nekk nag mbir mu nga xamante ni ñoom ñu dëkk foofee loolu jàpp nañ ni que rus na loolu ci ñoom ndax nag donte nag kenn mun leen tabaxal li nga xamante ni moom moo di ay salle de classe dañ leen a war a mun a jàppale daal ba nga xamante ni abri provisoire yooyee mën a am sécurité waaye daal jamono bii ganaaw lakk-lakk la boobee ba nga xamante ni daal ñaari classe bi dafa daal di lakk élèves yi fa nekk instant yi amuñu fa nga xamante ni foofu la ñu fay eh, jàngee donte soo nag kenn ñàkku ci bakkanam bu ñu sukkandikoo ci ka nga xamante ne moom moo di directeur bu l'école bi moom nag li ñu bëgg rek moo di ñu gën leen a woote wàllu ndax itam ba tey jii rek ñu ngi ci li nga xamante ni moom moo di année scolaire bi. ci diwaanu Touba itam ba tey foofee ab père de famille daal moom moo daal di jot benn taalibe bu nga xamante ni dafa ñëw ci moom daal di koy won ay cicatrices yi nga xamante ni am na ko ak ay góom yu nga xamante ni daal sëriñu daara moom moo ko daal di dóor ba yaramam daal di yàqu. moom xale bi sax daanaka mu ngi tollu ci fukki at bu ñu sukkandikoo ci suñu ay naataango wala sax moom mii nga xamante ni moom moo daal di for xale bi ngir dimbali ko daal di ko yóbbu hôpital jënd ko li nga xamante ni moom moo di frais maanaam moo di frais médicaux yi moom mi nga xamante ni nag moom moo di Serigne Modou Lo nag nekk nag nga xamante ni moom moo daal di gis. gaañu gaañu xale yooyee moom sax dafa am naqar ak tiis gannaaw moom gisee yooyee ndax jàpp nañ nag foofee ca diwaanu Tuuba xale yi ñoo ngi leen di tàggat di leen yar waaye nag war ñoo mën a permettre benn yoon di leen dóor ba daal di yàq li nga xamante ni moom moo di seen yaram waaye lu ci mënti am daal xale bi itam moom li mu xam ne rek moom moo di koko daal di dóor dóor yooyee nekkul ka xamante ni moom moo daal di moom daara ji waaye nag bokk na itam te ña nga xamante ni daal ñoom ñoo fay nekk di fa joxe li nga xamante ni moom moo di xam-xamam ñu daal di wax itam ci ñaari maçon yi nga xamante ni jàpp nañ leen kenn ki toll ci ñaar fukki at ak benn keneen ki itam toll ci ñaar fukki at ak ñaar ñoom nag daanaka sax dem nañ ci tribunal correctionnel pour nag li ngeen tafeeraat moom moo di daal di mandi publiquement ñoom sax daanaka ñoom lañ jàppee foofee ci diwaanu Arafat nekk ci quartier Grand Yoff ñoom nag li ngeen itam am na lu ngeen toppee moo di daal def li nga xamante ni moom moo di délit d'agression waaye itam utiliser ay mbir yu nga xamante ni daal dafay tax ñoom ñii ñu daal di tàggatoo ak ñu daal di tàggaloo ak li nga xamante ni moom moo di seen xel ñoom sax daanaka euh, mbir mi ni leen jàppee moom moo di kenn ñoom daal moom moo ñëwoon daal di seeti moroomam li nga xamante ne moom moo di euh, produit yooyee nga xamante ne bu ñu ko jëlee da leen di xirtal ci def lu ñaaw ñoom sax après bi ñu leen jàppee ba enquête bi buur bi ñu jàkkaarloo ak nga xamante ni moom moo di àttekat bi kenn ñoom daal li mu wax rek moom moo di xamul benn yoon ana leen mooy euh, produit boobee ndax xaritam moom moo ko ci daal di dugal ganaaw nag bi leen interpellé ñoom sax doone daanaka weddi woon nañ li nga xamante ni moom moo di eh, tuuma yi leen di permettre loolu sax moom moo waral itam ka nga xamante ni moom moo di seen avocat daal di sàkku eh, tribunal daal di leen di jéggal ndax nag ay daanaka xëy na ñooñu dañoo daal di juum. foofee ca diwaanu Madinatu Salaam daal di wax ki coowal suuf ku ne xam na ni nag fan yi mbiru suuf ak itam wàllum yoon eh, fës na loolu ci coowal réew mi ngir nag loolee mën a jaar yoon. foofee ca diwaanu Medinatu Salaam am na collectif bu nga xamante ni daal daal dinañuy yëkkati seen kàddu daal di koy jubale ci président Bassirou Diomaye Diakhar fay ndax ñoom nag jàpp nañ ni que ñu bëri ñoom foofee ca Medinatu Salaam kentaakun yi fa nekk daal ka nga xamante ni moom mooy seen guide di Cheikh Béthio Thioune moo fa jëndoon ab pàkk bu bëree bëri ci ay hectares yu bëree bëri yu nga xamante ni daanaka ci addiya yu ko ay taalibeem joxoon la ko jëlee woon daal di ko jënd ab pàkk loole sax mu ngi ko doon lotise jamonoy 2007 bëggoon ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay taalibeem moom sax waxoon na publiquement nekka kat yi ni daal eh, kenn daal moo ko moom moo di ay taalibeem dimbali leen ba ñu am fa nga xamante ni foofee la daal di dëkk waaye ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni rek moom moo di secrétaire général collectif di wuyoo ci turu lay Mal nee na nag eh, gox boobee di du Salaam daanaka am nañu lotissement bu toll ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom parcelles yu nga xamante ni daal 500 mètres carrés lañu. kon nag eh, ñoom loolu moo war a sax ñuy jooyanti eh, fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba nga xamante ni loolee am na jàpp nañ daal ki nga xamante ni moom moo di maire Mali Malicounda moom nag moom moo defoon ab recensement daal di xool. ana yan mbir la ñuy def daal ba fexe daal nangu yenn ki suuf yooyee ñoom nag jàpp nañ ni que loolee mbiru caaxaan la waaye tam loolee daal mbiru jaay doole la ndax ñoom lépp lu jëm ci ay kayit daal nañ koy am wane ni nag ka nga xamante ni daal moom moo nekkoon seen sëriñ eh, di sëriñ Béthio Thioune moo leen gëndaloon li nga xamante ni moom moo di pàkk yooyee ñoom sax jamono bi foofee askan wa da ngeen daal di menacer daal mbirum déguerpissement waaye itam sax démolition ak arrêt de travaux ci yenn bërëb yu nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofee ci diwaanu Madinatu Salaam ñu daal di àddu ci gaal gi nga xamante ni daal yeboot na eh, fanweer nit ak ñaar yu nga xamante ni daal ñoom ñu ngi jóge woon foofee ca diwaanu Saint-Louis gaal googu nag moo kostewaat ca diwaanu Gandiol bu ñu sukkandikoo ba te rek ci information yi nga xamante ni daal moo ngi jóge ci direction euh, de l'information et des relations publiques des armées maanaam DIRPA ñoom nag li ñu xam ne rek moo di gaal googu sax ñaari néew daal nañ ci àndaale ñoom sax dañoo bu jëloon décision daal di dem fa nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Espagne waaye nag gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci biir géej bi moo tax ñoom ñu daal di retourné wuwaat loolu sax moom moo waral itam jamono bii nii. ñoom ñu daal leen jël def leen suivi waaye tam takk der yi it bi ab lanket xool ana ñen ñoo nekkoon convoyeur yooyee ñu bëri ci ñoom sax daal di verser lu toll ci eh, juróomi daanaka juróomi téeméeri junni juróomi yu nekk maanaam daal nit ku nekkoon eh, téeméeri junni daal nga daal di joxe ngir daal di mën a bokk ci ña nga xamante ni ñoom ñooy dem foofee ca diwaanu Espagne jamono bi nag eh, takk der yi ibbi ab lanket xool ana yan convoyeur ñoo nekk ci ginnaaw ñooñee ñu àddu ci li nga xamante ne moom moo di cancer at bu nekk rek fii ci diwaanu Sénégal daanaka lu toll ci eh, juróom-ñetti téeméeri eh, xale ñoom dañuy am feebar boobe loolu sax moom moo waral boo xoolee ñaar téeméer ak juróom fukk ñoom sax daanaka dañuy tëdd ca lalu hôpital ndax itam dañu am li nga xamante ni rek moom moo di euh, kaaraange bu mat sëkk waaye itam ay moyens ngir ñu mën a daal di faju loolee nag ñu ko daal di xam sax moom moo di euh, docteur yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, faj xale yooyee li ñu xam ne rek moom moo di sax jot na sëkk jamono bii nii cancer ñu mën leen a daal di dimbali daal ba ñi nga xamante ni am nañ ko ñu mën leen a dimbali ba ñu mën koo faju ci ni mu gën a mën a yombee ndax yenn saay sax yenn ci ay xale yi il faut itam ñu mën leen internet ngir ñu mën a am eh, suivi bu mat sëkk cancer nag jamono bii nii mu ngi wóy ni di faat ay bakkanu xale yu bëree bëri eh, ci àdduna bi ndax sax boo xoolee fii ci diwaan Sénégal bis bu nekkee rek gën gaa néew ay fukki xale daañu dee ci feebar bi nga xamante ni moom moo di eh, cancer ñi nga xamante ni mën nañ leen tuddee ay apprenti car te ñu gisoon leen ci ab vidéo buy circulé ñu ci def jëf ju nga xamante ni àndul beneen ak teggin ñooñee nag daal di nañ teg loxo ñenn ñoom muy kenn ci chauffeur si nga doon xamante ni moo doon dawal oto boobe waaye itam kenn ci apprenti yi nga xamante ni ñoo langoon ci ginnaaw di saboté li nga xamante ni rek moom moo di seen voyage loole sax nekkoon lu nga xamante ni bokk na ci ay risques yu mën a andi ay accident ci jamono bu nga xamante ni accident yi nemmeekoon nañ ko lool fii ci biir réewum Sénégal ñoom nag gannaaw investigation yi nga xamante ni takk der yi nekk foofee ci commissariat central bu ndakaaru def nañ ko waral nag ñu daal di teg loxo ñaari nit ñooñee ñoom sax damono bii ñu ngi ci lëkkoo bu police bu ndakaaru waaye itam nag ibbi nañ ab lanket ngir xool ana ña ñoo nekk itam ci ñoom ànd nag ñoom di def jëfu ñaaw ñàkk teggin yooyee ñoom sax dinañ leen présenté monsieur le procureur de la république tey jii nii euh, foofee ca grande instance euh, hors classe bu ndakaaru pour ibbi nag ab lanket xool ñoo ñooñu itam ñen ñan nañu àndaloon ngir def jëf ju ñaaw joojee waaye ba tey rek ci l'accident yooyu itam démb foofee ca diwaanu ca jaay ab bus bu nga xamante ni daanaka mu ngi yeboon ay nit yi fees dell moo daal di heurté benn doodandet daal di daanu gannaaw loolu sax ay nit yu bëree bëri daal di ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti métti jamono bi nag accident yi nekk lu nga xamante ni daal tullee ak maaje la accident boobu sax mu ngi am ci école élémentaire bu Malick Guiri gay nekk nag route de Kaolack foofee nag daanaka sax foofee la accident bi daal di am waaye itam ñu bëri daal jàpp ni ñàkk teggin gi bokk na itam ci lay andi li nga xamante ni rek moom moo di accident yi loolu sax itam nemmeeku nañ ko foofee ci commune de Tomboronkoto itam nekk rek foofee nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Kédougou foofee itam ab camion bu nga xamante ni daal ciment la yaboon ba daal di fees dell moom itam moom daal di daanu démb ca dimanche bi foofee ca Kédougou loolee sax ñoo ngi ñi xamante que nag ka nga xamante ni rek moom moo di chauffeur bi dafa daal di raté li nga xamante ni rek moom moo di virage bi gannaaw bi jéeye boobee amee nag ñaari nit itam am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti métti bi mbir mi amee nag ci lañ woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di brigade gendarmerie de proximité bu Màkko ñoom nag ñoo daal di ñëw def constant li nga xamante ni moom moo di mbir mi waaye itam ñi ci amoon ay gaañu gaañu ñoom itam ñu daal di leen yóbbu rek foofee ci hôpital régional bu Kédougou ñi leen fa yóbbu ñoo di waa sapeur pompier. ñu ñëw itam rek ba tey rek ca diwaanu Thiès kaay daal di wax ci chemin de fer bi foofu nag ña nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ca chemin de fer ba rawatina ki nga xamante ni moom moo di monsieur Ibrahima Ba. nga xamante ni dañ koo daal di tabb directeur général bu SEMEDEFER ñi nga xamante nag ñoom ñooy liggéey foofu daal ñoom li ñu bëgg rek moom moo di ñu daal di dissoudre li nga xamante ni rek moom moo di société boobee di Grand Train du Sénégal ndax nag ñoom jàpp nañu que nag loolee nag euh, dafay andi rek ab féewuloo diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo di liggéey ci chemin de fer ak ñooñee mu mel ni nag ñoom daal jàpp nañu ko loole benn liggéey la bu nga xamante ni kenn waru koo tas ba tey ji ka nga xamante ni moom moo di secrétaire général adjoint bu syndicat autonome des travailleurs du rail moom nag jàpp nañ ko daal moom njiitu président de la république daal war na mën na ñëw visiter li nga xamante ni moom moo di sànq yi nga xamante ni moom moo nekk jamono bi ci chemin de ndax jàpp nañ daal ne secteur boobee buñ ko dundalee rek lu baree bëri ci ay jafe-jafe ci wàllum dem bi ak dikk bi mën nañ ko daal di fexe daal saafara ko ba mu jeex tàkk fii ci biir réewum Sénégal. ak musiba mbab kumba bi nga xamante ni xew na foofee ci diwaanu Saint-Louis ca quartier bu ngi naan Cité Ñax foofu nag ab dal moo daal di daanu ci ay nit daanaka saak ñaari xale. kenn ki toll ci juróom benn at keneen ki toll ci ñeenti at daal di ci ñàkk seen bakkan waaye itam seen wajur bu jigéen daal di ci jëlee ay gaañu gaañ yu méttee métti mbir mi nag mi nga am démb ci samedi bi jamono six heures du matin nga xamante ni daal ñu bëri ñu ngi doon dem jóge jàkka ja di ñëw boobees jamono sax la mbir mi daal di am waaye nag mu nekk nag incident bu nga xamante ni daanaka ñu bëri nee nañ loolee bettul waa kër googee ndax ñoom sax ñu ngi woon ci ay tànk di déménager wu ngir génn kër googee gannaaw anam bu nga xamante ni kër gi meloon na ko ndax nag yu bëri bëri ci maanaam bâtiment yi demoon na ba ba màgget waaye tam gi gisoon nañ sax ay suñu nga xamante ni won na ni ni kat loolee dafay daal di daanu waral nag démb askan wu nekkee ndax daal di am naka la tiis tam mer ba nag ndax nag yéen saa ñoom liñ jàpp rek moo di am na ci ay tabaxkat yoo nga xamante ni ñu jox ak ak yelleef liggéey yi nga xamante ni ñoo ngi koy jox te boobu jamono saa itam ñeneen jàpp ni daal lii di mairie yi dañoo war am ay cellule de contrôle yi nga xamante ni dañuy daal di veiller ci li nga xamante ni moom di dëkkuwaay yi bu ko defee rek bépp kër bu nga xamante ni mu ngi ci ay jafe-jafe ñu mën a génnee seeni borom ngir daal di sauvé seen bakkan ñoom nag sax daanaka démb bi leen bi mbir amee ñaari néewu xale yi ñu yóbbu ko ci hôpital waaye seen yaay ba tey jii nii son na lool ndax itam moom jamono bii wér-gu-yaramam sooxi na lool. grève bi nga xamante ni intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ñoom nag ba tey jii rek ñu ngi wéyal di ko def ñoom sax daanaka fan yi ñu weesu ay grève de cent vingt heures lañ doon daal di def nag mais euh, euh, à partir de lundi bi ñu jëm ñoom nag daanaka sax nar nañoo def li nga xamante ni moom moo di grève cinq jours maanaam banque seen yoxo grève yooyu sax daanaka daal di andi ab handicap lu bëree bëri ci ëttu euh, collectivité territoriale yooyu nga xamante ni jamono bi jafe na lool ngir am yenn kayit yi lu ci mel ni am ay kayitu juddu waaye itam lu ci mel ni itam am itam yeneen i kayit yu nga xamante ni yenn saa yi ni daf koy soxla ngir mën a régler yenn dossiers yi ñoom nag ba tey rek ñu tànk ñu ñu taxaw temm nag daal di bank seen baaraam di laaj seen ak ak seen yëleef waaye itam di di laaj daal li nga xamante ni moom mooy seen payoor ñu gën koo revaloriser waaye itam yenn indemnités yi nga xamante ni am na maanaam war nañ koo am ñu dimbali leen ci ndax jàpp nañ daal ñoom liggéey bi ñuy def liggéey bu mucc ayib la te yenn saay sax ñoom itam ñoom ngi sacrifié ba seen alal daal di des ci yenn liggéey yi li fi mu daal daal ñoom jamono bi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di syndicat boobee daal ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yu bees yi daal leen di jàppale ndax nag ñoom seen xeex bi daanaka sax depuis ci nguuru président Macky Sall la woon ba tey jii nii ñoom ci seen plan d'action yi yi mujj sax nemmeekoo nañ ni que demoon nañ sax ba ni dañuy daal di tëj li nga xamante ni moom moo di armée yi bu ko defee rek benn néew duñ ko mën a suul bu ko defee rek askan wi gën a xam bu baax a baax fana lañu ana fan lañu war a mën a teg seen tànk ba ñu xam ne kat ñoom jamono bi sonn nañ loolu ci lii di seen grève yooyee étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk itam foofee ci si technique Ahmadou Bamba bu Diourbel ñoom nag daat nañuy décréter li nga xamante ni moom moo di grève illimitée ñoom nag bokk na ci li nga xamante ni rek moom la ñuy revendiquer moom moo di ñu fay leen seen ay bourses yu nga xamante ni daanaka juróom-ñaari weer moo ngi nii ñoom jotuñu ko ñoom nag sax daanaka euh, depuis mardi ba tey daal ñoom ñoo ngi ci seen ab guerre waaye lu ñu bëgg rek moom moo di ñu gën leen a jox seen ak ak seen yelleef ndax nag ñu bëri ci ñoom daanaka jóge ci ay dëkk dëkkaat ñëw fii nii. daal di war a jàng si waaye ba tey jii daal du am benn condition bu baax bu nga xamante ni ñoom am nañ ko ci seen njàng mais waral nag jamono bi ñuy du baaraam ki nga xamante ni moom moo di jiwoon bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi moo di docteur Abdourahmane Diouf li ma daam daal ñoom jamono bi nee daal il faut itam nguuru Sénégal daal deen bàyyi xel ndax nag jàpp na ni étudiant dundam dafa xaw a métti ci bàyyi fa nga xamante ni fa nga dëkk war a ñoo jàng si waaye yenn saa yi seen bourse moo di mën a ci yenn jafe-jafe yi. di ñu encouragé itam waaw euh, gis nga indiscipline amul njëriñ nekk ci sab kaar di way way emprunté bi di bandi bandi luy fëgg fii ak ah sa ndaam talu fii ah ngay doublé ka was wasee oto bi ba vidéo ba viral ñu ngoy la ci nii xam nga lii dafa dafa dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la te période leer na ma ne période bi ñu gisee seen vidéo bi ñu naa leen ah sama gars yi seen vidéo bi. ñépp ko am envoyé ma ko envoyé ma ko ña kon kontaan ba dagg ca waaye gis nga gis nga gis nga lim leen fi mu leen lim leen jural fi mu toll nii jàpp nañ leen gis ngeen yaru moom ak yar lum la mayul rek du la ko xañ waaw lum la mayul ci lu baax du la ko xañ waaye réew lum la xañul du la ko may woykat ba na ko euh, Seka Seka kay woy na ko réew ñàkk kersa réew ñàkk kersa lum la xañul du la ko may daan ni baax a gën bon nag ndax lum la mayul du la ko xañ ndax soo baaxee rek am lépp waaw boo bonee nag moom ayca doxala li nga xam ni lépp dëgg la ah kon nag euh, mbir mi mi ngi noonu kenn rafetlu ko waaw dal yi euh, boo ci ay waay dal yi dal yi màgget yi dimbali leen ñu ci amul ancien tabax laak amul tabax bu yàgg laak daa baax ak daa dëgër ak ndax lii ancien tabax la ay lu ko daaneel yombu dëkk gis nga màgget moom ancien ñàkk ancien ci yem màgget moom ku màgget màgget nga waaw màgget moom màgget la lu wóorul wóorul lu wóoruta ronu wóoruta ronu ah, bu ko ronu ah bu ko ronu wóorul lu wóorul koy baal nag te dëgg dëgg nag te dëgg dëgg dëgg dëgg nag nag nag nag nag nag ah waaye lii nag wax del wax liin ci nag ah mu ngi noonu daal doy na waar doy na waar lool waaw yow cette place bi tamit dal ci yow ak avion bu paan ah ak loo mën a xelu mën a xelu mën a xelu mën a xelu camion bu paan xanaa nga war caa bañ a mën a dal nag yaa ngi nii set yëpp blessé am ci ñett ñoo xamante ni blessure yu garaaw la ñu am li duñ ci wax bàjjen xujja ah sëñ Abdou Salam Sarr kon ñu jaajëfal ñëpp nag jox ñëpp seen wàcc waaye kontaane leen jox leen dig dajee itam ba suba ak jàmm ak salaam mbokkee xarit yeeg dëkkandoo ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sono gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waay di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. cher jeune ténor yu enquête 221 dal leen jàmm dalate leen jàmm ci li gën a fës jot yëglekaay yi mesdames et messieurs bonjour nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da seet loolu rek mbaa yéen a nga ca <laughs> seet te te te nag yàlla baax na ñu yendoo ak jàmm ba suba jàmm incha allah ñu ndoog jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong mais la dong de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen ndoog jàmm <laughs> tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay Sonko te Sonko jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha